ndakaaru dafa sàkk woon ci askanu ndakaaru fan yi ñu génn ñu ñëw mayee deret ndax nag amatuñu woon benn stock boobu lay woote bàyyee ko ci hôpital principal amical bi ëmb liggéeykat yi nekkee ci 2AS dégg nañu ko. ñoo def don de sang parce que dégg nañ ne que dëkk bi dafa xaw a manqué tuuti deret donc euh, employé ñoom à chaque fois bu ñu waxee rek ne am na capacité pour ñu mën a ñëw remplir nos devoirs. ñoo def fu mu nekk ni xaar nañ nañ def cinquante tey mais peut-être ñu def lu ko ëpp. docteur Correa jàpp na ne maye deret jéego bu am solo la. ça sauve beaucoup de maladies vous savez euh, les problèmes hématologiques et dina sauver ñu bëri ñoo euh, xam ne dañuy am problème ci seen wàllu ñi nga xam ne dañu am cancer de sang cancer de la moelle osseuse wala ñi nga de la route. ñàkk yar gi dañu koy nemmiku bu baax a baax ci mbedd yi di accident loolu waral li ñuy def tey am solo lool ci dundin amical bi ëmb liggéey. liggéeykat ya nekkee ca 2AS moom nag dal dinay sàkku ci entreprise yi nekk fii ci Sénégal ñu def ñoom itam lu ni mel naam sax benn yoon lay doon